l'institut de technologie alimentaire à malone al a et une cérémonie de remise de dons et produits antiseptiques ak denrées alimentaire Djebolko ko maire bu Anne Belair lolu yep ci directeur de cabinet bu ministre du développement industriel et des petites et moyennes entreprises Babacar Meng maire bu Anne ak ITA ak conseillers municipaux yu commune bi bile xew-xew nak jéxantalam contribution institut bile ci xeex mbass mi di coronavirus. cérémonie bi ni ko dafa bokku ci bi nga xamné

dafa bëgg dafa dugal loxom ci programme bi nga xamné monsieur le maire de la commune euh, euh, sox soké nako pour que ñu mëna a fièvre bi motax ITA défar gel hydroalcoolique euh, défar na ci quantité bu bari ak farine enrichie maanaam farine bo xamné ne dafa instantané ba paré dañ ko enrichir ak ay produits locaux té que moy bëgg bëgg président de la république mercredi dernier rek conseil des ministres rappelé nako dañu wara consommer sénégalais

Euh, amo leneen lu dul sa dëkk te bu doon sa sago la ngay uti ci yeneen dëkk yi sa dëkk mën ko joxe parce que lii ngeen gis mun naa qualité bi mi ngi ci te lii jox aussi 1000 litres ak 500 kilogrammes kooku quantité la donc je pense que loolu dafay loo xamante ne dana mën a soulager les populations parce que wax nañ ko riposte bi c'est communautaire maanaam dafay doon loo xamante ne kër këroo kër nañuy dugg sensibilisation waxtaan ak nit ñi nous avons aussi le troisième âge et boo la farine enrichie bi bokk na en tout cas nous mettre à la disposition gratuitement des populations donc c'est pour vous dire que c'est une quantité non négligeable mais je remercie le directeur général le président tout le personnel bu ITA ci liggéey bi def mais di remercier également particulièrement ki nga xam ne tutelle bi muy le ministre Moustapha Diop ak directeur de cabinet et tout le ministère ci vraiment lii nga xam ne mooy loo xamante ne dafay delluwaat rek ñu verser ko ci li nga programme en tout cas de riposte locale